Modou Modou Mbaye wuyul sëñ bi Modou Mbaye wuyul sëñ bi dama bismillahi rahmaani rahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxdahu walsalaatu walsalaamu ala man la nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullah bokk yi noo ngi leen di nuyu kàddu yi ñu yëkkati kàddu yi sëriñ Abdul Fattah la mi nga xam ne moom la sëriñ Abo jox kàddoom fu mu war a teew war fa dénkante ak bokki taalibe yi te jot gi mayewu ko ba ci màggalu Kazu Rajab gi sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm cant gi ak ngërëm li mi ngi koy tàmbalee ci cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moom la sunu borom dogal tam neex nu lool mu nekkal fi cheikhul xadiim sëriñ Abo nee na ba mu fa yebalee sëriñ Abdul Fattah wax na ko lam ko daa wax mu tontu ko lam ko daa tontu lam ko daa wax mooy kër sëriñ Fallu kërug déglu ndigal la waaye du kërug laaj ndigal sax waxuma laa di jaar sàkk ndigal ba mu ko xamalee na ko sa bisu wajur ba de weer wa terawti na am na ndénkaan lu ca suñ fa lu dénkoon njaboot gi waaye yow mii jër ba suñ fa lu yoroon jamono ba muy taxawal màggal gi di ko siiwal su joxe ndigal cër ba ci sa yoxo la nekk muy ak Serigne Touba soo nee ñu def nu def soo nee déet déet lay doon mu ne leen lu ngeen ca xam rek xam naa ca ba xam ca leneen ndax leetar ba nga xam ne moom la sëñ lu doon waxe sëñ Moodu Maamun ñang la waral muy dem Darou Salaam di fa fanaani di xëy di jaar si kër suñu affaire ñaŋ lettre boobee ba mu ko bindaloo suñu muur maamu ñaŋ da ko doon imla da ko doon dicté muy bind ba mu àggalee suñ loxoy suñu Muntaxaa mii la ko teg ne ko téel ma ko am na ñu ko tàmbalee am waaye ci ay ku ko am daal ci ay yoxam nga ko jëlee kon ku xam bis bii sëñ bi nag mi ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax ci jàppale gi ko jàppale ci sottal gi ñu mën a sottal ren ndénkaaleen sëñ Fallu loolu te alxuraan mi ngi ñuy wax ne képp kuñ ci dénkati dara te ka war a dénkaane dénk ko ko na fexe ba bu mu suute ci ay yoxoom kutiba aleykum ida xadara ahadakum almawtu in taraka xayran alwasiyatu lilwalidina wal aqrabina bilmaarufi xaqan ala almuttaqin yàlla noonu yàlla musal nag ci suutal ndénkaan ak la ko niru sëriñ baa ngi sant sëñ Muntaxa bu baax sëñ bi nag sëñ aboo ci làmmiñu sëñ Abdou nee na bi sëñ sëñ Murtala di woote dafa woo fépp woo ñépp nee na wóoru ko ba xam ñëpp ñëw nañu ak fépp ñëw waaye xam na ni daal ñu bari ñëw na ndax baatu ana waa dëkk sàngam moom dëkk yu wuute dégg na ko ba tàyyi kon xam na ne woote bi nit ñi dégg nañ ko wuy nañ ko ñi jiitu ci wuy ci nuyoo ci woote bi nag mooy ñi nga xam ne dañoo jaayante ak Serigne Touba def ko suñ fallu muy seen bunt nee na ñooñu moom saa bu leen wooyee bañ ñëw la mu siq ak ñoom ci bu fa kenn kenn di ñëw it moom la siq ak ñëpp kon bu bisub suñ fallu bii ñëwee mu woote ci turu suñ fallu ñëpp dikk la suñ fallu def rek lay def li ko war seen diggante ak ñoom mooy digal leen tere leen bataaxal bii ma yore sëriñ fallu moo ko bind ci loxoom euh, woo sëñ Moussa ba mu ñëw mu ne ko ci làmmiñu yaaram la ko bind waaye soo demee nga wax ko ci làmmiñu réew mi ngir mu gën mën a tasaaroo tasaaroo sax lu yàqu la waaye mu ngir mu gën a mën a yaatu lam ca bind mooy daf ne li yaalama kullu man waqafa ala hadihi alxuruf min almuridina bi anni kaatibuha képp ku sa gët ne toq ci xaraf yii ku ko gis na xam ne maa ko bind buñ ko waxee it ku ko dégg na xam ne ci man mii la bàyyi ko bu dee ku jaayanteeg moom ku jaayanteeg Sëñ Tuubaa jaarale ko ci moom moom waru gar la mu daal di koy jëfe ku dib jullitit daal ad diinu an nasiha laa biri ne ko ko bu ko bu ko soobee ne ko jël daf caa bind ne maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ragal yàlla nag day am lu koy firndeel mooy jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem loolee it am na lu ko nit ñi mën a xàmmee ginnaaw bu ko yàlla xamee mooy duggug nit ki ci lislaam ba noppi doonub jullit su doonub jullit nag ab jullit nee na lii yii moo ko tënk yett yii yéene lu yéene aw yiw di def aw yiw mooy lu baax te sax ca dàkk rawatina rawati ca nag julli yu juróom yii nga xam ne tey jii muy guddi gi ñu bàyyi ko su doon am bis bu ñuy daje naan kaay leen ñu fàttaliku bis bi mu fi ñëwee kon moom lay doon kon bis boobu suñ fallu ñëw te muy bis bi julli juróom wàcce bu suñ fallu ne nañ fokk nañu fonk waxtu yi juróom di ko julli ci ay waxtoom day mel ne jaanam mi nga bëgg a wàcc noo ci bëgg a des waaye ba mu ko tollante yi daf ne képp koo xam ne yaa ngi dox amoom xel yett yi faw nga doon ca kenn dana am loo xam ne yow rek yaa ko moom ak loo xam ne danga nga koo bokk nit ak lu sa yoon nekkut fa teg loxoom nag mooy lu sa yoon nekkut nga maandu ca ci jëf ci wax ak ci jëf dan ni leetar bataaxal bi teg naa ko ci loxo loxoy sëriñ Moussa Ka ngir mu leeral ko ci làmmiñu réew mi waaye li ma koy jaaxale mooy nangeen ngeen fas yéene nekk li feeg yéen a ngi dund di ay jaame yàlla yu dëggu di yëkkateendoo di tegandoo te bu leen tàggoo mukk loolu laa leen digal su ngeen ko defee dangeen gis njariñ na ca faax toog ku ko defutit mi ngi ci aw ñal na ca faax yal nañu ci Yàlla musal sëñ Fallu moomu nag nga xam ne moo doon bind bataaxal boobu ñi jaayanteeg sëñ Touba jaare ci ay yoxoom sëñ Sidi Muxtaar Ka am na lum ci wax sëñ Muuru Muhammadul Mamoun feelu ko ca waaye nag man damay jë damay jël yenti bayit yoo xam ne ñeneen ñooñu ñu wax sëñ Fallu mi diir bi mu fi nekk ci kaw suuf lum fi nekke woon ak jamono jam fi dajeeloon nu jamono jameloon ak ak nu mu ko melal ci kattanu suñu borom am na ku ñuy wax sëñ Hamdi Ka doomi sëriñ Moussa Kala li tax ma bëgg indi ay tur ay léebaka lupp la rek wala ku ku ko soob muy wax rek déedéet ku fi ku amoon la ku amoon la am nañu ko jox loxo fii ci fii ñu toog nii am nañu ko fi ma sa jox loxo Sëñ Hamdi Ka moom nag doomi Sëriñ Moussa Ka gane àdduna 1940 bàyyi koo fi 1988 xasida gu gudd la waaye yaari bayit yi laa cay tànn daf caa wax ne bi fadlika nqaadat al arzaaqu wa intasharat sharqan wa garban tabaaha fiika lazmaanu lawla muqaamuka fi dal asri mazdahamat mazdahamat tilkal fi tilkal fi amu ila tuuba fa laqraanu daf ne ko ci sax ay la wërsëg walwali jóge ci xebla yépp wërsëg wa nag yàllaa ko yabal xaada mooy loo xam ne daa ñëw noonu te kenn wowu ko yàllaa ko yabal yëguñu tinuñu ba mu daj réew mi kap penkook sow ndeyjoor ak càmmooñ ba jamono yooye bu ca kanamee tuuti bu ma nee wax dana ne pëkk-pëkk ay jamono na leen nu ma def ak yéen te su booba moo leen di daan li ci topp mooy su fekkoonte ne du sa taxawaay bii ci jamono jii nit ñi duñ raj raj loo jëm si Tuubaa ay góor ak jigéen ay mag ak ndaw kuy làkk làkk wu ne wal wal si wal wali wutali Tuubaa lawlaa muqaamuka fi dal asri masdahamat tilka al fi'aamu ila tuba fa laqraanu waaye am na keneen ku ko feelu moom itam ku ñuy wax maa anta jóob dëkk Taif maa anta jóob mi ak xamanteem ak sëñ fallu mooy ba sëñ fallu demee ca sëñ Moodu Moustapha di seeti sancam mu ya taifan ca la ko ma Anta Diop mi jox loxo fasanteeg moom wëllëre ak kóllëre ci jamono suñu falu nag la bind moom itam xasida gu gudd yii may wax ak yeneen ndax juróom-ñaar fukki waykat ak ñett lu néew néew ña nga ca ñoo xam ne kenn ku ci nekk dañ na la loo xam ci suñu falu rek nga génne la nga nga wax la nga ca xam te ñooñu kat li maam Thierno doon wax dalu ca kenn moom Cerno daana wax ne antu amut lenn lum jag lu nit di def antu loo xam ne antu da cay topp ba ci jiitu mooy lekk antu lekk antu laajtantu jàngantu xamantu ma anta jóg moom dafa wax ne alxaaji faadilu fi ayaamihi minanun biha yuxassu fa fiha faadatil muzunu العري والجوع في أيامه ذهبا عنا وزحزح فيها الحرب والمحن alhaji Fallu mii ngeen may laaj lu ma ci xam xam naa ne daal ci ay jamonoom xéewal da doon wàllu ba ñun ñi newoon ci kaw gi dëkki kaw yi nga xam ne suñu xéewal ña ngi ko ajoon ci xiin ak taw ak lay ak naaj dafa mel ne niir yi dañoo ñëwoon ba jege Sénégal lool ba boo nee ko kung kung rek mu daal di sottim ndox dal ne déedéet yëmut foofu de ragg rafle ak xiif ci ay jamonoom demoon na bu ñu koy wax sax da ngay nit ñi dañuy dañoo ne ci di kaf waaye diirub li mu fi nekk amul benn xare boo xam ne tàkk na te Sénégal bokk ca kon jàmm ne bay kon boog téere boobu bay ji nekk ak yeneen ak waykat yooyu juróom-ñaar fukk ñett lu mu néew néew ku dem ci téere bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee shawaahidu baadul afadili shawaahidu baadil afadili fii manaaqibi cheikh Mouhamadul Fadil te sëriñ Mamor moom cheikh Mouhamadul Fadal rahmatullahi alayhi moo ko dajale woon ba niñ ko yeesalaate daaw jéeg 2022 ku dem danga ca fekk yii ak yeneen yu bare bare bare bare yoo xam ne buñ ne Sëriñ Fallu lañuy wooteel bis buñ jàpp ne mukk dañoo toog ba yàgg rek ñu ne sëriñ bi ne day day wootee déedéet bis bii ndénkaan lu Sëriñ Fallu dénk sëñ euh, ak njaboot la ba yàlla teg ko ci loxo Sëriñ Abu Baraka mii yàlla na gën a yàgg ci loxoom fi may mottalee nag goow ñaan yàlla ñu fekk wa déwén ak jàmm mooy sëriñ bi nee sëriñ Gallo Ba yow ak ñi nga àndal ñëpp sëriñ bi nee mi ngi leen di fay am nuyoo wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha nuyoo bu ñu jële ci seen xol ndax xam nañ ne jamono xat na lool soo wootee nit ñi jël nañ yaar bàyyi ko ci seen ginnaaw jël nañ ab coono bàyyi ko ci seen ginnaaw gisatuñ ko ndax ku dox diggante dëkk ak dëkk jànkoonte nga ci ak ab coono kon sëriñ baa ngi sant ci loolu bu baax a baax a baax waaye ku jël waxtu itam toog ko ngir wuy si wooteb sëriñ bi it jël nga lu bari loo war na am ci waxtu waaye waxtu woowa du neen def ko ci bëggug sëriñ bi eh, eh, nee na mi ngi lay dolloo ab nuyoo di la ñaan nga dolloo ko nuyoo ci chef de l'état mi nga xam ne fa ngeen bàyyi ko nee na kóllëre googu nga wax ne moom la siq ak moom it nee na fas na ko yéenee tee ba ba muy sob sunu boroom lenn luy fecc kóllëre moom du bàyyi ko ci moom lépp loo xam ne it day tas yaakaar it ñaanul yàlla mu bàyyi ko ci moom kon mi ngi lay sant yow ak ñi nga àndal ñëpp te lim leen fi di ñaan ña ñëwut it foo ca àgg bu ko tegee ci loxol sëñ Abdou Lahad Ka mii ni nga ko ci tudde ku ca war a jot dana ci jot sëñ baa ngi sant bu baax di sant it mbooleem ñi nga xam ne bis bi tax na ñu jël ci seen la leen yàlla wërsëgal ci seen coobare kenn laaju leen ko ndax sëriñ bi du ne andi mukk suñ ëboo du ne indi leen mukk ku dem ci kër fal lu gay nekk ci jumaa jumaay jumaay jay nekk ci bunt kër sëñ fallu ca ndakaaru sëñ muur maamun mii su fekkee suñ ëboo nee na ko yët ma nangam man mën naa ko jox léegi mu wax ko su ne indil ma nangam ma def ko ca moom mii mën naa ko jox rajo bi léegi mu ne moom a laaj du laaj kuy nekk mu laaj la doo ko jox mukk te it du jàmbat mukk loolu it li sëriñ bi wax ci ab jataayam dund nañ ko ci bu baax ku yomba àndal la koo xam ne du la laaj te lu am mu néew mu bari dana la ca baal xel kooku sëñ bi ku ko amoon tam jël dañuy wax ne ànd bi ci gën a jafe mooy àndu mbëtt mbëtt da wax ne boo jaaree ci kanamam mu ne yaa ngi far sama gunóor yi soo jaaree ci ginnaawam mu ne yaa ngi am foo may joggi mooy loolay lang ca gannaaw ga soo jaaree ci wetu ndey joxram wala càmmooñam mu ne danga maa defam nawle te du ma sama room loolu dalu ko dalu tit ña ay ndigalam di jóge ca moom ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi di jëm si suñu nii dalu ca kenn kenn ku ci nekk doxinu suñu ëppam ngay dox sëñ Abdul Fattah nag nee na woon su ma ñëwee na la ñaanal yàlla nga yàgg fi te wér lépp lu nar a dogale loolee nañ ko danañ ko falang muy jooy jooy yi wéy ba ba muy soob suñu borom moom loolu moom amatul àpp waaye lépp loo xam ne yit yaa ngi koy digle ñoo ngi nii looy looy digal ab taalibe daal noo ngi nii looy def ci taalibe it noo ngi nii toog di déglu loolu si bu fa tax ma ko wax léegi